mbokk mi TV ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di la wax di la wax noo ana noo tudd. Akhibou Thiam Kër Hassan Diassé. sëñ Akhibou Thiam Kossy TV ma ngi lay ndokkeel bu baax di la dalal. macha allah alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kossy TV ñu ngi leen a jaale li ñu bokk. muy lan Mawlana Cheikh Mouhamadul Akhibou Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne rek moo ñu fi dajale ci waxtu wi gannaaw ajuma ji. nekkoon suñu lépp suñu jur mu yar ñu ñaar fukki at ak ren ci benn ñi ngi ànd ak moom depuis 2001 ñu juddu ñu tuddee ñu ko may ñu ko sedd ñu ko mu yar ñu amee ñu. ba bés ni ki tey ba 2008 mu jëlee ñu fi yóbbu ñu dëkk bu ñuy wax Kër Xasan Jaase ngir ñu toggal ko fa ci digganteem ak taalibe yi ak ci tool yi. Eh, loolu mooy xew-xew bi nga xam ne moo ñu ko fi indi ñu koy jaale ñëpp rawatina waa Kossy TV ñu ngi leen koy jaale bu baax. jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Aqib ki nga xam ne mooy sa sëriñ nekk sa lépp tey ba nga yëgee ne dëgg-dëgg génn na àdduna ana lan nga yëg. Eh, te depuis waxtu bi mu wàcc ba léegi ñu ngi fii ci itte yi ci pas-pas yi ak ci taalibe yëpp waaye xew-xew koo xam ne bu diis la ndax lu tax mosuma gis ku baaxee ni Mawlana Cheikh Mouhamadoul Aqib Cheikh Ibrahima Niass. musuma gis ku bëgge alquran ni Mawlana Cheikh Mamadou Akhou Cheikh ibrahim Niass way musuma gis ku amé kóllëre yi ni Mawlana Cheikh Mamadou Akhou Cheikh ibrahim Niass bépp kóllëre sàmm nako bépp mbattale samp na sàmm na ba mu mat rawati na ñun fa ñu dëkk ci Kër Xasan nga xamné damay wax jamono ci radio yi télé yi di wax ne ñun Kër Xasan lañ lañ defal Serigne Akhou lañu ñu way lan la Serigne Akhou def Kër Xasan lool kenn du ko lacc ndax Serigne Akhou mu ngi ñëw Kër Xasan 81 sampal nañu juma sampal nañu daara alquran sampal nañu kastu poti defal nañu teen lépp lu xalaat rek ci àdduna defal nañu courant mu ngi takk gox boobu yëpp lépp lu fa aju ci gox boobu ci courant di tàkk Cheikh Mamadou Aqib Cheikh Ibrahima moo fa indi ba bokkoon na ci itam atum ren mu indi fa yoon boo xam ne dina jógee wàkk ngunu ba Kër Hassan Diassé loolu ci prosem la bokkoon loolu ci ay yoonam la bokkoon yi ma la wax yëpp Serigne Aqib moo ko def Kër Hassan te mboolem tund woon ko bokk loolu moo tax bi ñu jógee xew-xew boobu lu diis la man mi nga xam ne waxtu bu ne man bu waree ñëw Kër man lay woo maa ngi ñëw su waree yónnee ci taalibe yi man lay woo demal ci diw su amee lettre bu ñu yónnee gannaaw signature am sama signature moo ci tegee yóbbu ko ci taalibe ñun ñoo doxoon digganteem ak taalibe ci wàllu jumaa ci wàllu këram ci wàllu tool lépp eh, ci jàmbu xew bi la ko tegoon gannaaw bi nga xamee nag moom moo ko fa yóbbu samp ko fa jox ko ndigal pour mu liggéeyal ko moo tax xew-xew bi ñu ko yëgee diis na ci ñun lool rëy na ci ñu waaye muñee nañ ko Mawlana tànk nga woon loxo nga woon lépp nga woon ci Cheikh Mouhamadou Aki Ibrahima Niass kon dëgg-dëgg waa kër Assane Diassi ñoom bañ yégee métit bi ana ñoom it nan lañ def ndax ñëw nañ voilà. macha allah kër Assane ñëw nañ tund lu wër kër Assane ñëw nañ xale yi toog yëpp waa kër Assane lañ te li ci ëpp it ay doom la ñoo xam ne ñëpp mokkal nañ alquran te ci daara jim samp foofu fa lañ mokkale fa alxuraan tëree fa ñenn ñi génn ba dem bitim réew sax jàngi ñenn ñi mokkal nañ alxuraan te ci yeneen itte loolu moo tax bi kër Assane yëgee na Cheikh Madou Akhibou boo fa ñëwoon ci waxtu boobu da nga xam ne dëgg-dëgg Kër Assane ñàkk nañ wax ne mboolem adduna bi ñàkk nañ waaye Kër ñoo ci gën a ñàkk ndax lan fi tolloon ak Cheikh moo tax xew-xew moo attanoon kenn ci mbedd mi euh, talaata kalifa yi fi tey bi ñu xëyee ñëpp dew euh, ci tund bi kii taalibeem la taalibeem bu mag la ci taalibeem dëkk dëkk bi kër Brahima Diarra moom it dëpp talaata ba léegi da ngeen ay itteem ñëw waaye comme ni mu la ko waxee ndaw ñii nga gis ñu toog ni ñëpp waa kër Xasan Diasse lañ ñëpp taalibe Mawlana Cheikh Ahmadou Rakhibou lañ euh, sëñ Akhibou def liggéey mooy dëkk boo xam ne amul benn ndaw booy gis mu téye cigarette di ko tox amul ndaw booy gis mu téye secret di ko tox loolu fu ñu neex mën nañ ko fa wax ndax amul lépp ci barke Cheikh Ahmadou Rakhibou duñ fa tëgg ndënd duñ fa tëgg tama duñ fa kenn du fa yar xaj tamit képp ku fa indi xaj bu amee yow semaine rek mu daw ci la fa loolu yëpp ci barke Cheikh Mouhamadou Rakhou loolu nag dañ ci jox taarix wax nañ ne Mawlana ñëw benn takkusaan mag jàmbatal ko ne ko suñu dëkk bi bu ñu fi wasifa dañuy gis ay nit di fi tëgg mu ne leen sax leen ci seen salatul fatiha yi rek benn timis mag ñi di wasifa rek ñu gis néeg boobu gaa yooyu defoon seen sabar yi takk te kenn mënut wax ne lii ko taal te nañ ne depuis ci Mawlana Cheikh Ibrahima léegi kenn mësu dox ci kaw suuf ba wax la ne ak ñooñu nekkoon Kër Assane ci jamono jooju ba yàlla indil ñu Cheikh Mamadou Waaqi bu 81 ci ndigalu magam Cheikh Alhaji Abdoulaye Ibrahima Niass mu rëddal ñu juma 81 la ñëw Kër Assane mu rëdd kër gi mu rëdd daara ji ubbi ko yàlla dogal 83 bi ñu ubbi daara ji ma njëkk fay juddu ñi njëkk ma fay tuddee Cheikh Mamadou fay aaxib bu ma la takkal jabar moo ma sampal kër lépp lu nekk ci man rek Cheikh Amadou Akhib moo ko ci def waaye ñu nit ñu jëloon suñu dund dénk ko ko duñ neweti duñ noori duñ dem fen guddi na bëccëg na suba na ngoon na ñu ngi kër Assane ci ndigalu Cheikh Amadou Akhib Cheikh Ibrahima Niass ba ren ren waxtu bi moom ko mujj a gis waxtaan bi mujj waxtaan moom daf ne ma gëj naa laa dégg yow maa lay oo rek yaa ngi kër Assane ma ne ko mënuma toog fa rek wallaay am na ku ma àndat bañ génne laa ko ne bés ni tey man tiit naa ci Mawlana Cheikh Abdoulaye Cheikh Ibrahima Niass lu tax mu ma yaa ngi kër Assane toog fa waaye xibaar bu diis moo daanu ci kaw kër Assane xibaar bu rëy xibaar boo xam ne kenn mënu la wax ne nii la ko nit ñi dékku woon waaye nag comme li ma la wax léegi ñëpp mu ñëw nañ ko Mawlana Cheikhul Islam Hadji Ibrahima Niass radiyallahu anhu waaye njëriñ loo xam ne bànqaas boo xam ne ponk boo xam ne ci islam dem na dëgg-dëgg loolu kenn mëntu wax yàlla am na utal ñu ngi koy ñaan yàlla mu utalal ñu ko ci njaboot gi ñu ngi koy jaale njaboot gi waaye rawatina ko ci bu dul lii sax ñu ngi ànd ak yéen ci programme yu bëri ñu ngi leen ci di seetaan waaye dëgg-dëgg ñu ngi leen di gërëm waaye ñu ngi jaale mboolem jullit Cheikh Mamadou Lakhab Cheikh Ibrahima Niass rawatina waa Kër Xasan Diassé nga xam ne ko defee gis kër gi ni mu euh, def ne lu doomu aadama di jëriñoo rek ko Kër Xasan atta ay ko indi di ko solal dàll weer mbaxana amul na ay teranga ma ko ne ma joxal ma diw ma diw di fa séddale ay xarit lu ne rek ko def Kër Xasan ne def na ko ñëpp bokk ko mooy daara jumaa muy ndox lépp Cheikh Ahmadou Akhi moo ko wàccee kër Assane ngir lan mboolem réew mi ko bokk yi daal mooy kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko ci doon jàllale asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam jërëjëf ñu ngi lay ndokkeel góor gi macha allah yow foo bàyyee ko ak tudd man maa ngi tudd Cheikh re dëkk kër Burama Diarra ñun sant nañ yàlla gërëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne alwaladu sirru abi Cheikh Mahamadou Akhi bu caam doon wax sama jarbaat la sama doom la man maa ko ja waaye man aaxibu ànd naa ak moom ñeent fukki at yu mat ku ma ko gën a xam nekkut fii ci kër gi nekkut ci ay taalibeem waa ndukumaan yëpp ñu ngi taxaw di ma ko jaale waa Banjul yi fu nekk téléphone yaa ngi fay jógee di ma ko jaale ku ñëw man la xam ku ñëw man lay laaj kon fa tabaarakalaaw sama doom Cheikh Aaxibu li mu wax doy na sëkk doyloo nañ loolu waaye ma xamal la ne aax bu nekk na jëmm joo xam ne ji kenn munta ay xayma naka la mel ci yàlla ak naka la xem ci yàlla ak naka la bugge woon baay ak alquran moo tax ma xool ko ba mu yàgg ma ne ko du mer du xas du jëw te du ŋàññi kaay ma waxaal leen kii xool ba asal lañ ko fóotee moo boole tabeeg man du yërmande xamut kuy noonam rasulullah jikkoom yaa ngoog wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah jërëjëf kilifa gi am na solo ci tagg yu nga xam ne yaa ngi ko ko tagg ñu ngi am mbégte ak kontaan di leen ko jaal bu baax a baax a baax di ñaan yàlla fu mu leen féete woon yàlla ñaan yàlla féete leen fa incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ bu baax. waaw Mouhamed Thiam waxtaan nañu ak moom léegi.